basoo not nañu jurhum ca Makka xalaban ci noteel min baadin tasliiti naxfin ba gannaaw yàlla yebale nax jàngoro la feebar la boo xam ne ay war yu nekk ci seen bëkkan mu doon jàngoro ju ci rey ñu bari fii honnête yi ci seen bakkan ya loolu feebara mm, boo xam ne seen nekkewu yàlla bëggul fa kaabaam lu mooy sabab waqila bal سلط الله الرعاف عليهم كان إن جاء في إفناء جلهم am ñu ni déedéet am mbari la yàlla xiir ci ñoom jàngoroy mbari alayhim boo xam ne kaana nekk na fi ifnaa i jullihim ci nar a jeexal la ëpp ci ñoom ci ci dégg nga ci dégg nga de ci ci maanaa jorhum ah, irga ab ba dikkee am ñu ne la ñu ne ay wer ñoom nag ñu nekk fa nekk fa وبئر زمزم عمر طمها حسدا إذ أخرجوه لجور كان في الحرم jurhum moomu ngir googu am nga waa ji ñuy wax amar ci ñoom daana def ay ndëng te ci màkka ba ñu dàq ko génnee ko dëkk ba mu génnee ko màkka yëpp mu di ko mettitlu di ko jooy ci ay woyam ah wa kunna wulaatal bayti min baadi naabiti nun noo féete woon néegu yàlla ba ci gannaaw naabi mais di ko jooy noonu mu kunna wulaatal bayti xanika an lam yakun bayna alxajooni ila safa أنيس ولم يثمر بمكة ثاني وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والدهور البواتر ma ngay métti lu jàng di jooy nee na ba mu ne diggante xajoo nag Safa ñaari quartier la ci Makka Safa nag mooy état Kaaba ga fa la xeer wane nee na dafa mel ni benn xarit yu wéttalikoon te mosul nekk foofu dafay mel ni xarit yi waxtaanaanoo guddi lam yasmir bi makkata saamir day mel ni loolu musta am tey wa kunna wulaatal bayti min baadi naabit ni gannaaw naabit ibn ismaila ibn ismail noon diuxum noon nangoo woon néeg boobu naatoofu bi zaakal bayti nga xam dan daan war ca néeg boobu yooyotaan wal xayru waahirun yu bare na feeñ na foofu bala kay naxnu kunna ahlaha nun noo doon waa kaaba fa aba aadama daal muy alag rek surul fi layaali mën a xew xew yàlla doog a sotti kuy jàmm guddi wa duhóor ak ay dagg bépp feewoon mën a batri wal xatar nee loolu mooy woyu amru ndax la mu def lan la biiru zamzam amrun amaha moo ko sakk dafa dem ngir añaane leen is axrajoohu dañu ko génnee Makka bi jawrin ngir jëng goo xam ne kaana nekkoon na fil xaram yi ko ca nag ndeysaan moom itam moom xol ba mu dem bett leen teenu Shamsa kenn xamatul raatale ko kenn xamatul fu ba nekkoon ba yàlla moo ko kon nag la mu la mu paase ci ay séegal yàlla rek ko xam yoo xam ne kenn ah, teenu teenu Ismaïl boobu lay amatul dema dema dem ba yàlla moo ko feeñalal bi ah, amul yonent ci àddina jegesee yàlla feeñalal ko ci Abdul Muttalib danañu ca jaar danañu ko gattaate wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yaswa shiddat al alam wa fiihi ca biir samsam ba yajcalu alaaqan ay gànjari alal yoo xam ni yu bannu bi haa def na ca may ngir seen seer danañ ko tudd ay keel yi ñu liggéey ci wurus noonu ay yeneeni alaaq dana ko tudd ci kanam mu dal leen jàpp yëpp yoo xam ne ay hadiya yoo xam ne nay buuru danañ ca jaaral ca kanam saasaan wala saabuur kenn ci buuri Faris ndax kaaba gi buur yi dañ ko daan ziyaare ci àddina ñu ko ci xam dégg moo ko hadiyaaloon kaaba gi ndax ñoom ñëpp tasoon ni néeg yàlla la gëmoon nañu ko aywa waaye boo yonent bu ñu topp di tëgul foofu la aywa mu nakk ko yooyu yëpp sakk ko suul ko li añaane leen ñu ñàkk ko ay tegal da ci abdul muttalib danañu ca jaar nag géntam ga ah yàlla feeñalal ko mu gas ko génnee ko su ko defee ci ci yi xabila si bu mujj benn bi ci seegal yu mujj ñu daal di ko xëccoog moom ba la ca xew lépp danañu ci jaar incha allah waqaama mu jëm nag ba ñu ko génnee ba mu sakkee teen boobu ko génnee mu saka ba di ko sakk ko lén si uddi sosi way def ko muy jo jàmbat te waya si dëkkal alam taru mitam mooy ni ngeen dégg léegi mu wax ko ci abiyaat وقل خزاعة ما زالوا يلون إلى أن ذاق سيد حليلا خاطبا. a être